boo bëggee jot bépp vidéo bu jóge fii ci chaîne chaîne Nour Darayni TV da ngay bës fii ñu bind s'abonner boo noppee nga daal di bës cloche bi. Nour Darayni TV le reflet des valeurs et culture di mouridisme. bi mu noppee ci muqaddima bi mu ubbi buntu bunt bi nag ci mooy xamle diine ji ñu doon waxtaane sànq te mooy ji yàlla yonti euh, jox yonti bi alayhi salaam mu mu mu leerale ko jamono gindee ci ay nit jaarale leen génnee leen ci ay xat-xati dund mooy xat-xati dund ak i jafe-jafe ak i pas-pas yóbbu leen ci yaatug dund ak leerug dund ak njariñ loo xam ni day nekk lu tey ak lu ëllëg diine jooju mooy jën diine ak naka la mel ak lan lan moo ko composé ni ko waxee woon ci tàmbali gi mu leeral ni diine yàlla ji de ñetti xaaj la bi ci njëkk mooy wàllu ngëm yàlla ginnaaw gi mooy ak ak wommatu gi mooy di def pratique gi ñetteel bi mooy ngay rafetal rafetal gi mooy li ngay def jëm yàlla rek tax léegi mu tàmbalee nag ci ngëm yàlla gi ndax ngëm yàlla mooy li njëkk a war ndaw mu war koo xereñe war koo xam ginnaaw bu fekkente ne ni yàlla dogal na mu juddoo ci diine bu màggee li mu war a yittewoo gën koo xam gën koo xereñe ba mu leer ci ab xelam cim xelam ci ab cub xolam loolu mooy ngëm yàlla ngëm yàlla la war a laaj mooy lan kan mooy boroomam te loolu mooy tax mu xam yàlla te bu xamee yàlla dana xam ni mu fi mu fi mu war a teg boromam te it dana am kersa ci diggam ak moom tey it dana ko bàyyi xel ci mboolem lu muy dund te dana taxit mu am li ñuy wax taqwallaahi muy ragal yàlla ngëm yàlla loolu nag dafa wax ni ci buñ la ko dee leeral ci ay wax dafa am ay ponk yi ci njëkk mooy nga gëm yàlla gëm malayka yi gëm téere yi te mooy téere yi jot a wàcc ci mboolem yonent yi fi masa jaar alayhimu salaam gëm bés pénc ba te mooy bés bi nga xam ne ci la suñu borom di atte jaam ñi di ci fay seeni jëf gëm ndaw yi nga xam ne ñoom la yàlla yónni woon téere yooyu muy yonent yi alayhimu salaam nga gëm leen ñoom ñëpp waaye it gëm dogal bi nga xam ni yàlla da koy indi ci nameel du dikk mukk jekki-jekki rek am waaye saa su dogal bi ñëwee rek dafa fekk muy lu yàlla nam kon loola mooy juróom benn yi nga xam ni moom moo tënk ngëm yàlla juróom benn ponk yooyu it mën nañ koo gën a yaatalaat ba nit ki gën koo mu gën a leer ci boppam mu ni gëm yàlla gi doo wax ni da ngay gëm naa yàlla rek doy na déedéet waaye waa yàlla daa am lu yell ci moom am lu jomm ci moom am lu dagan ci moom li yell ci moom te mooy loo xam ni dafa war sax yemul ci yàlla waaye dafa war ci moom nga xam ne suñ borom mënu koo ñàkk nga danga nga koo war a saxal ci jëmmam ji yooyu mun la am na ñaar fukki melo yooyu da nga koo war a saxal ci jëmmi suñ borom ji loola la ca jëkk mooy ak amam moom yàlla subhaanahu wa taala nga dëggal ni yàlla kat lu am la ba ñiy woote woo ak di waxta wax ci wàllu xel di critiquer amuk suñu borom gi ak di ci dute yow doo ca bokk da ngay wóoru ni yàlla suñu borom am na ni ko sëriñ bi misaalee ci Mawaahiboul Xudduus wax ni bu fi ay dëgg boo boo yekkee wax ak génn sa buntu kër seen ay dëgguy tànk jaar fi danga xam ne fii nit a fi jaar soo seenee neefere ay gileem ci sa buntu kër boo ñëwee da nga xam ne fii gileem jaar na fi dont gisoo gileem ga naka noonu it nee na amul suñu borom gi noonu rek ci lañ mën a tegtaloo ba xam ak amam donte gisuñu ko te mooy asamaan yi ak suuf yi ak mbooleem lu ci aju lépp ñu xam ni lii kat jékki-jékkiwul am waaye daa am buur bu ko sàkk muy borom bu ko sàkk ni nga xamante ni boo gisee dëgguy tànk yu romb da nga xam ni nit a fi jaar donte gisoo nit ko kon nee na noonu ci ngay xamee ni yàlla ak amam lu wér la waaye bokk na ci ginnaaw boo saxalee amuk suñ borom dëggal ko wóolu ko nga saxal ni suñ boroom aji jiitu la joy joj amul fu tàmbalee yàlla ak jiitoom amul fu mu tàmbalee nga gëm nii aji des la joo xam ni amul yemuwaay loola yit aw mela la woo war a saxal ci jëmmi suñu borom nga gëm nii it ku wuuteeg mbooleem mbindee fami mboole seen loola yit lu war a sax ci jëmmi suñu borom li la man suñu borom mënu koo ñàkk maa lépp loo xam ne rot na ci sam xel rek nga xam ne suñu borom mi mi mii yàlla wuute na ak loola lépp lu rot ci sam xel rek yàlla wute na ak loola kon yàlla nekkul loo xam ne am xel mën na koo dékku bay xalaat nii la mel wala na le te lépp lu rot ci sam xel benn dégg nga ko wala nga gis ko moo waral nga mën koo xalaat kon lu rot ci sam xel rek su borom subhaanahu wa taala wuute na ak loola waaye yéen nga gëm ni suñu borom kat amul aajo ci dara wala ci kenn wala ci lenn lépp loo xam ni yàlla sàkk na ko loola mooy li aajowoo jëm ci suñu borom waaye suñu borom aajowoo jëm ci loolu ndax lu dul yàlla yàllaa ko sàkk loolu mbindeefum suñu borom la waaye it nga gëm ni suñu borom koo xam ni la aji aji wéet la maanaam li ma bëgg a wax mooy suñu borom kenn la kenn la koo xam ni amul ñaareel amul ñaareel ci ay waxam amul ñaareel ci ay jëfam amul ñaareel ci jëmmam ak ci ay meloom loola it nga saxal ko ci jëmmi suñu borom bu boobaa doo wax ni yàlla ñaar la doo wax ni ñett la doo wax ni ñeent la dangay xam ni yàlla daal kenn rek la kon loola mooy pas-pas bi jiitu nit ki war koo fas ci diggam ak boroomam te mooy saxal juróom benn melokaan yooyu ci suñu borom ginnaaw googa it am na yeneen melokaan yu coy dolliku lu demee ni ki mu saxal ni suñu borom kat kartan ñeel na ko waaye it ak nammeel it ñeel na yàlla kartan mooy pouvoir boo xam ni ci lay jëfe lépp lu mu bëgg a jëf waaye it nammeel goo xam ni mooy tax mu bëgg a jëf li muy jëf loola it nga xam ni suñu borom amee na ko waaye it nga gëm ni suñu borom lii di xam-xam ak dund ak dégg ak gis ay wax loolu lépp ñeel na jëmmam ji nga xam ni yàlla amee na ab xam-xam amee nag dund dund goo xam ni amutug dee amee nag dégg amuk gis am ay wax yoo xam ni ñeel na jëmmam loola it nga saxal ko ci jëmmi suñu borom nga xam ne doo ko dàq mukk waaye it ginnaaw boo saxalee loolu ni loola ñeel na suñu borom nga gëm ni suñu borom loola la ndax kat boo nee suñu borom amee na kartan dana tegtale ni yàlla kon aji namm la aji aji aji àttan la ci lu mën a doon lim ni waxee ne qaadirun ala kulli shay'in yàlla aji namm la ci lu mu mën a doon lépp loo seen rek suñu borom àttan na loola xanaa kay soob ko ak ñàkk ko soob moo tax lii mu dogal ko loolu dogalu ko waaye it coobareem googu muy jëfandikoo bay tax muy def li muy bëgg a def ak di bàyyi li muy bëgg a bàyyi loolu lañuy tudde ak nammee la kon nga gëm nii it suñu borom aji namm la ndax ci nammeelam googu ci la ci la sukkandikoo ba amal li mu bëgg a amal waaye ñàkkal li nga xam ni moom la bëgga a ñàkkal nga gëm ni it aji xam la xam-xam boo xam ni nag matale na lépp dara rëccu ko mbir mu nekk xame na ko na mu demee ak na mu amee nga gëm nii it aji dund la jot aji dégg la waaye nga gëm ni aji gis la joo xam ni aji wax la di wax ak ay jaamam ay jaamam di ko tontu ni muy wàqanteeg jibril alayhi salaam di wàqanteeg ku mel ni yonent yàlla mu te alxuraan nettali ko di wàqanteeg mbooleem nit yàlla yi nga xam ni suñu borom yéege na leen ca daraja yu kawe ya it mooy nga jommale ci moom safaanub yii ma tuddoon yépp nga jommale ko ci jëmmi suñu borom ji safaanub yooye nag mooy li nga xam ne dafa xaraam ci nit ki mu saxal ko ci jëmmi suñu borom bu loolu jàllee it am loo xam ne nag moom am nga ak ñàkk gaa am moo bokk yemoo ci jëmmi suñu borom ji subhaanahu wa te loolu mooy amal gi yàlla di amal mbindeef ak ñàkk gaa amal loola nga nga nga daganal ko rek ci jëmmi suñu borom bañ koo waral bañ koo jombale nga xam ni yàlla dafa dagan ci moom xàq yooyu dafa nekk loo xam ni dañ koo war a jox suñu borom li war ci moom ñu waral ko ci moom li jomb ci moom ñu jombale ko ci moom waaye li dagan ci moom ñu dagale ko ci moom te ñett yooyu moom la atte yi séddalikoo te mooy lu war lu jomb ak loo xam ni dafa dagan ginnaaw loolu it malaayka yi noonu malaayka yi boo leen dee gëm ndax waxoon na ginnaaw boo gëmee yàlla da ngay gëm malaayka yi gëm ni ñoom seenu am lu lu dëggu la ay malayka lu am la donte gisoo leen nga bañ a sikk sàkk mukk ci seenu am nga gëm ni ñoom ñu nu musal lañ ci ay bàkkaar duñ def lu yàlla bañ lu leen yàlla aaye duñ ko def nga gëm ni ñoom it duñu xayta duñu beewal maanaam duñ tuur ndox duñ dem àll ndax kuy lekk ka naan mooy yittewoo yooyu te ñoom duñ lekk duñ naan loolu moo waral duñ yittewoo yu ni mel nga nga dëggal ni malayka yi ay jaam lan ñoo xam ne yàlla da leen a teral ba faw nag te kenn lu du ci mooy ndigal lu suñu borom kenn ku nekk ci ñoom it la muy def mooy la ko yàlla digal la muy bàyyi mooy la ko yàlla aaye nga gëm ni it suñu borom da leen a bind ci leeram leer goo xam ni nag àndul benn nax nax muy leer goo xam ni leeru kese la ci la leen bind loola nag yóbbe leen ci ñoo mooy suñu borom contrairement ak doo doomu aadama jëmmi suñu maam aadama nga xam ni ñun ci lañ soqi ko moom suñu borom boole na ci moom ci biiram leer waaye boole na ci lëndëm leer gi mooy ruu gi waaye lëndëm gi mooy jëmmi yaram wi nga xam ne moom lañ tabaxee ci ban loolu moo tax ñuy man di def ay bàkkaar ñoom doomu aadama waaye malayka yi loolu fekkul leen ci ñoo leer rek ci lañ leen bind nga di ko sellal loola mooy seenug lekk mooy seenug naan kon loola mooy li nga xam ni war nañ koo saxal ci jëmmi malaayka yi bu loolu weesoo it nga gëm li ñu wax téere yi asamaan yi mboole seen nga dëggal ni ay téere la yoo xam ni mu ngi bàyyikoo ci suñu borom lépp loo xam ni nekk na ca di ay wax nga gëm ko dëggale ko noonee nga xam ni nekk na ca bu ñu waxee téere yi nag mooy yu authentique ya mooy ya nga xam ni dafa wér soppiwuñ ca dara te téere yooya mu ngi toll ci ñaar fukki téere ak ñeenti téere mboole seen na nga leen gëm gëm ni waxi sunu borom lool gëm it ci yonent yi nga xam ni ci la ko yàlla wàcce lu demee ni ki yonent yàlla aadama am na téere yu wàcc ci moom lu tollu ci fukk yonent yàlla siisa di doomi aadama juróom fukki téere wàcc na ci moom idrisa fanweeri téere ibrahima alayhi salaam fukki téere muusa ak isa idrisa moom fanweeri téere euh, yonent yàlla ibrahima fukki téere li ci des muy ñeenti téere yi des mu séddalikoo ci diggante muusa isa euh, ak daawud ak yenti yenti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo séddalikoo ñeenti téere yi loola it nga gëm ko te ñeenti téere yooyu it seeni tur nga xam leen lu demee nekk tawreet nga xam ni moo wàccoon ci Muusa injil wàcc ci Isa zabuur wàcc ci Daawuda alxuraan jii nga xam ni moo mujj ñëw wàcc ci yenti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye nag téere yooyu yëpp da nga leen di gëm nangu leen waaye nag bu dara desul topp seeni jàngale diine yi maanaam li li rot ci alxuraan moom ngay saxal moomu ngay topp ndax loola mooy li nga xam ni moom moo valable ci ji jamono ndax mooy li nga xam ni moom la moo mujj ci lu suñu borom wàcce ci ab yonentaam alayhi salaatu wasalaam waaye yone yonent yi bokk na ci mooy yonent yooyu nga xam ne ci ñoom lan wàcce ay téere nga gëm leen ñoom mboolem kun ni ab yonent la na ko dëggal gëm ni lépp la mu doon wax ak daan ca nekk dëgg la ndax ab yonent yi daa am yu war ci moom am yu jomb ci moom am yu dagan ci moom yu war ci moom mooy asiddu muy ak dëggu ak jotal ak ak ak li ñuy wax ak dëggu ak kóolute ak jotal ñett yooyu dafa war ci ab yonent loola it kon da nga war a da nga ko war a dëggal ci ab yonent ba képp koo xam ni wax na ni ab yonent la nga xam ni kii daal lii di ñàkk wax dëgg te mooy wuruj ak nëbb dëgg ak ñàkk jotal nga xaraamal ko ci ñoom mooy nga ñàkk koo saxal ci ñoom te xam ni ñoom mënuñoo def loolu ndax yàlla da koo da koo dindi ci ñoom li dagan ci ñoom nag mooy lépp loo xam ni yàlla daganal na ko ci ñoom lu demee ni ki denc soxna ak lu demee ni ki euh, juum feebar dem ca marché ba jënd ak jaay yu ko nuru lépp loo xam ne doomu aadama da ko da koy def rek te xaraamu ci ñoom yàlla araamul ko ci ñoom ñoom bu nu ko defee ñoom ñoom yonent yi da leen di dolli tuyaaba ndax ab yonent wax na ni lu mu gën a nuroo ak nit ñi ci la gën a jege suñu borom ci la gën a mate maanaam lu mu gën a ji nuroo ak nit ñi ndax ku ñu yónni la ngir mu ñëw ci nit ñi indi leen ay message bokkul ak malaayika yi nga xam ni ñoom daanaka euh, du ñu def yooyu yëpp ndax lan amuñu affaire ak euh, mission bi nga xam ni moom la moom la suñ borom jox doomu aadama bu dee yonent yi nag ci biir doomu aadama yi la bokk waaye yàlla jagleel leen jagleelu boppam te mooy aara leen ci ñàkka a fen ak ñàkk a euh, am kóolute te mooy di def ay bàkkaar waaye ñàkk jotal loolu suñu boroom da leen ci da koo sorile waaye euh, euh, sori soril leen ci yooyu saxal ci ñoom ak dëggu ak kóolute ak jotal yi dagan ci ñoom muy noonu lépp loo xam ni it danoo wax ni ab yonent def na ko muy kéemaan nga gëm ko dëggal ko wóolu ko xam ne loola lu mën a nekk la ndax kéemaan yooya nga xam ne day feeñ ci ñoom lu deme ni ko yonent bi alayhi salaam ni mu xare woon weer wi ak ni mu waxloo woon mbëtt ma loola suñ boroom da cee jubloo jàjje borom xol yu dëgër yi ñi nga xam ni gëm yombul ci ñoom bu buñ ko defee ñu xam ne lii de xar baax la lu xotti baax la ñu mën a nangul ñi kii kat lii mu man yàlla mooy ko man loo kon loola it dafa war ci booy gëm yonent yi nga gëmaale ko gëm seeni mujiza li mu yonent yi tamit nga xam ko xam ni yàlla yónni na bi àdduna sosoog léegi ñetti téeméer yonent ak fukk ak ñett waaye ci téeméer fukk ak ñett tànn na ci ñaar fukk ak juróom mooy ñëw ci alxuraan ci biir ñaar fukk yeeg juróom yooyu mu tànn ci juróom ñoo xam ni ñoom la gën a kaweel seen daraja ñoom la ñuy wax ulul azm te ñooñee it nga xam leen te mooy yent bi alayhi salaatu salaam moo ci jiitu sunu euh, yente yàlla Muusa tegu ci Isa Ibrahim ak yente yàlla euh, Noox alayhi salaam ñooñu mooy ñi suñu borom tànn ci mbooleem yonent yi nga xam ni yónni na leen nga gëm ni it am na li ñuy wax ay yonent yoo xam ni yàlla soloo na leen ñu amee garaat bi waaye nag yàlla yebalu leen ñooñu boo leen boolee ak ñi mu yónni wax na ni toll nañ ci téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni loola nga gëm ko saxal ko yàlla na yàlla dool leen xew la mucc ginnaaw gi yéen nga gëm bés pénc ni ngay gëmee bés pénc nag mooy lépp lu yonent bi alayhi waxoon ni loola luy xew la ëllëg nga gëm ko te alxuraan jàngale ko lu demee nekki dekki ga ak pang ma ak peese ba ak eh, déegub kaw saraba ak àjjana ak sawara ak siraat ak jaar gañ cey jaar ak regle ga yàlla regle ga eh, yàlla di regle jëf ya ni ki noonu mu yonente bi alayhi salaatu salaam gëm bugal mooy boo gën a gëmee àjjana ak sawara di nga gëm bugal gëm ni yërmande it am na bu ëllëgee nga gëm ni it doomu aadama lépp lu mu jëf lu mu tuuti tuuti ni ko alxuraan fa man yaamal misqaala zarra xayran yara wa man yaamal misqaala zarra sarra yara lépp lu mu jëf donte lu toll ni pepp sar la ci lu baax danañ ko fay waaye bu dee ab safaan it noonu danañ ko fay loola bokk na ci booy gëm bés penc yi nga gëmaa nga gëmaale lu ni mel waaye nga gëm ni yomal xiyaam it du caaginu dañuy dem ba ñëpp dekk rek mu door a tàmbali waaye nga gëm ni ñaari xaaj la xaaj bu njëkk bi mooy képp koo xam ne dee na rek dugg na ci yomal xiyaamam yomal xiyaam gu mag ja nag mooy jamono ju nu ëffee buftu ba ndax yonent bi aleyhi salaam wax na ci xadis nee na aji faatu ji jamono ju faate nekk ci biir bàmmeelam nee na ngoon suba gu nekk ak ngoon gu nekk danañ ko gaaral barab ba mu war a sax ca àjjana bu dee àjjana mooy dëkkuwaayam wala barab ba mu war a sax ca sawara bu dee sawara mooy dëkkuwaayam nee na suba gu nekk ak ngoon gu nekk dañ ko gaaral ki nga xam ne tëdd na ci bàmmeel nee na du deñ di ko ko gaaral ba keroog nag bës pénc ba ñu door koo womal yóbbu ko ca këram nga xam ne fa war a dëkk yàlla nay àjjana ci ñunu ginnaaw boo gëmee bés penc it mu bokk ci lii tax nit ki ngëmam mat ndax yooyu yëpp am na lu muy mën a def ci nit ki ndax bu fekkee nit ki gëm na bës penc dana góorgóorlu ci lii tax mu dem àjjana lépp luy tax mu dem sawara dana ko wattandiku na boo xamee ne nag ni du bës bu sori bës bu jigee la ndax jamono ji bu dee dikkee rek tàmbali ngaa dund maanaam atte bés penc jamono ju dee dikkee te dee nekk lu sori ndax dundu fi téeméeri at yombatul te boo dundee ñaar fukki at daanaka mën na wax ni kenn togg la jëf ci jamono jooju ndax lu bari doo ko xam waaye ci diggante ñaar fukki yeeg ñeent fukki yi mën nañu wax ni ci lan lay togg jëf ci ngay nekk ndaw loo xam ni yaa ngi tàmbalee di xam lii bàkkaar ak lii ak topp yàlla nga war a góorgóorlu ci loolu te loola yi loo ci tamal ci sa yaram ak ci sa xel ak ci sa xol daanaka boo xasee àgg ci ñeen fukki at loolu rek mooy kon ne wéy ndax loolu day fekk sa yaram tàmm ko bu dee ak jub noonu la bu dee ab safaan it dana jafe loolu nga génn ci boo amul ndimbalu suñu borom ginnaaw loolu mun la nga gëm dogal muy juróom beneen lu ponk bi dogal nag ni nga koy gëmee mooy lépp loo xam ne am na moo xam lu feeñ la wala mu nëbb lu neex wala lu naqari jub wala lu dëng nga gëm ni dogal sun borom la bu nee lu jub mooy loo xam ni ak topp yàlla la wala mu boyi ko ci mooy yàlla lépp dogal suñu borom la waaye nag jullit bi naka la ko war a gisee mooy bu dee ak topp yàlla la mu sant ci yàlla xam ni lii kat yàllaa ko dogal ci moom du njàmbaaram bu dee ak mooy yàlla mu reconnaître ni lii de dogalub suñu borom la jiitu woon na tayam mu mu mu mu mu sant yàlla ci ci ci ci dogalu bàkkaar boobu ndax nee nañ suñu borom mënoon naa dogal bàkkaar bu gën a màgg booba nga def kon nga sant ci doon gi mu doon bàkkaar boobu waaye nag bul ko xeet waaye nga rëyal ko tuubal ko suñu borom ñaan yàlla jéggal la ko ndax kat euh, bu la ko jéggalul mën na koo fayantoo yow bu ëllëgee kon noonu la jullit bi war a doxee ci dogali suñu borom yi kon lépp loo xam ne xew na moo xam lu nëbbulu la wala lu mu feeñ mu gëm ni dogalu suñu borom la loolu bu ko jullit bi fasee gëm ko bëri na jafe yoo xam ne mu ngi am ci àdduna dana mujj nekk lu woyof ci moom lu demee ni ki tawat jii ñu nekk rek lii dalee ak lii xew bañ koo jiiñ kenn gëm ni dogalu suñu borom la jëmmi feebar bi ci boppam suñu borom mooy ki ko dogal mu war a am ci at mii mu war a amee donte mën na koo jaarale ci yenn ci ay ay yoxo ñu gëm ni loola dàqontewul ak dogalu suñu borom loola it dafa mat a xam bu baax ndax bu ndee wax naan euh, yàqkat yeeg ñi nga xam ne ay franc li ñuy li ñuy pexe yi ñuy def ngir ngir ngir ngir mën a yàq àdduna bi loolu lépp day dëppook nag ni dogalu suñu borom buñ ko dee misaal ci tukki sëriñ bi am na ay sababu zaahir mooy maam Abdouloo bi nga xam ni dem na ruuxale kook tubaab bi mën nañu wax ni ci la tubaab bi sukkandiku ba jàpp ko waaye fekk na boobu it sëriñ bi mu ngi dugg xalwatu di ñaan ngir mën a am fu mu mën a wéetale ba jaamu yàlla jaamu gooj ga ca war ak gëm bëgg suñu borom mën koo laabal ci yu bëree bëri ba suñu borom nangul ko ko ba sóob ci yontu ki kon boo dee xool dogal bi day së day day day lëkkaloo ak ay sew-sew sew-sew sew-sew yooyu nag mooy yi yàlla bàyyeek jaam ñi mooy yi yàlla bàyyeeg jaam ñi ku nekk xam na ni ka doon ruuxale diggante tubaab ak sëriñ bi am na bakkaar ndax def na ak tooñ te mooy fekk na ku deful dara koo xam ne lam koy tuumaal taxu koo jug mu tuumaal ko ci loola ci la tubaab bi sukkandiku ba jàpp waaye moom it ci la amee bëgg kon gis nga bu suñu borom di dogal ay dogalam da koy lëkkaloo ak i sabab asbaab yooyu nag dañ koy nangu bu baax di ci jaar waaye bu mu tax it ñu fàtte ni mbir yëpp dogal suñu borom la dana wax ni jullit bi daa war a boole gëm asbaab yi waaye it di wéelu ci suñu borom xam ne lu dikk rek suñu borom la kon loolu mooy tax nit ki nekk nit ku équilibré wu ba bu lu jotee mu dem sabablu ji waaye nag du tee mu ngi bàyyi ci biir xolam ni kat yàlla mooy sottal te lépp lu xew rek dogalu suñu borom lépp loo xam ni dal na ma rek suñu borom ma waaye du tee bu sabablu jotee danaa danaa sabablu loola lu ama am solo la ci ndaw ñi lu ama am solo la buñ ko doon mooñaale ak ndaw ñi di leen ci yar ci gëmloo leen dogal ni kat yàlla mooy dogal donte effort yi ni def ndax bëri na yàqu-yàqu yoo xam ne tey jii ndaw ñu dugg nañ ci Euh, sàkku njariñ lu teew rek moo leen ci yóbbee sàkku njariñ lu teew jàpp ni seeni moroom raw nañ leen gis nga boo xoolee ci ñiy dee ci géej gi ci wàllu mbëkk mi yu ci bëree bëri gëm ni am moom faw pour nga mën koo def li ñuy wax tekki faw nga génn dem bitim réew boo génnee da nga mën a tekki xam nga yooyu ay pas-pas la yoo xam ni euh, baaxut te mu ngi jëmbatu ci biir ndaw ñi waaye buñ leen jàngaloon ne kat dogal daa bokk ci lii tax nit ki ngëmam mat te bokk na ci lii lii tax nga nga gëm dogal mooy lépp lu xew rek dogalu sunu borom la njariñ ak lor ci dogalu sunu borom yi la bokk waaye nekkul ci luy bàyyikoo ci mbindeef ni ko sëriñ bi jàngee adur wa nafhu min arrahman laysa min assuudaan wal biidaan du nit ku ñuul wala ku weex wala ku la sopp wala ku la bañ du ku la jege ku baax wala ku bon du moo la mën a jariñ wala mu man laa lor waaye lépp dafa nekk ci suñu borom ni mu tënkee ci dogal ci bunt boobu nga xam ni lu am solo la ci ngëm rawatina ci ndaw mooy nanga gëm ni lépp luy jeexital ci mbir rek ci dogalu suñu borom la mbooleem bindee fi buñ daje woon bëgg a jeexital ci dara loola du mën a nekk misaal mi mooy bu fekkoon tey jii nit ñi dajaloo nan ñoom ñëpp bëgg laa jariñ bëgg laa def nga nekk ku am alal wala ku tekki wala ku nangam te yàlla nëmmul loola loola du am waaye ñoom ñëpp it buñ daje fu si yéene laa lor lu toll ni pepp sara te suñu borom nëmmul loola lor jooju du mën a àgg ngëm googu daa war a nekk ci ndaw li ba tax na lépp lu muy dugg da koy def ngir sabablu waaye dana bàyyi xel boromam mi nga xam ni mooy mooy dogal ci mbir yi. loolu mooy ngëm yàlla ci ni mu ko tënkee ci li nga xam ni yell na ci ndaw li mu xam ko fas ko ci diggam ak boromam ginnaaw ko mu leeral ko lii di islaam mooy buy jaamu yàlla maanaam islaamam ngir mu nekk nit koo xam ni islaamam dafa mat yan la war a sàmmoonteel mu ni juróomi ponk la moom islaam ba ci njëkk mooy zikrul ilaahi te mooy baati seere yi te mooy seere ni suñu borom rek mooy suñu borom moom rek mooy ki nga xam ne jaamu gi dana jariña ñàkk goo jaamu di lore kudul moom bu gëm ni yonent bi salaam it moom la yàlla yónni ci jaam ñi ndaw ab jaamam la di ndawam waaye it mu saxal julli juróom moo ci moo ci topp ginnaaw bu saxalee baati seere yi ginnaaw gi it mu saxal woor weeru koor wii ñu génn nga xam ni saa su yegsee dana xam ni lii kat yàlla moo ko farataal ci moom du ko fooyee du ko caaxaane dana ko jox xaqam na mu na mu kéemtalaay kàttanam waaye it gëm ni ak makka dem makkatal mukarrama xaj néegub yàlla ba yàlla da ko waral waral ci moom ba du nekk lu mu sopp baalu dagan ci moom waaye dafa war ci moom nga xam ni saa su ko manee rek dana ko jooxe gëm ni yàlla mooy ki ko war a ci moom àq la joo xam ni daa wa da ko war a jooxe mu door koo waaj waaye gëm ni asaka da koo war saa su liggéeyee ba alalam mat a génne loo xam ne mat na asaka mu mu am reconnaissance ci loola xam ne yàllaa ko wërsëgal am ñu mu xañ ña yàlla xañ nag yàlla sant na ci moom mu génn alal jox ñooña mu gëm ni asaka jooju dafa war ci moom kon juróom yooya mooy li nga xam ni ndaw li war naa sàmmanteeg moom ngir ñu mën a wax nii kii kat ku topp diine yi suñu borom la subhanahu wa taala ginnaaw bu gëmee yàlla waaye ci juróomi xaaj yooyu it ci nekk mu leeral la ci mu ni baat bii nga xam ne mooy baati seere yi te mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah yow ndaw li dangaa war a xam ni kat lépp lu nit di tudd ci aw làmmiñam la ca gën mooy baat boobu mooy li nga xam ni képp koo xam ni mujj na ci saw làmmiñ nga wax ko boo deeyee da nga texe mooy li nga xam ni nit ki bu nee woon ci ak kéefër ba dara desul lu dul dee yàlla xiirtal xolam mu wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah bu boobaa bu deewee dana bokk ci ñi texe nga xam ne kon mooy baat bu rëy rëy bu màgg boo xam ni jullit bi da ko baat boobu dafa war a rëy ci moom waaye it wartoo koo tudd benn yoon rek ndax benn bi mooy farata waaye fu mu toll war na bëri lu mu koy tudd ndax lan ngir suñu borom mën a koo boole ci ñi nga xam ne kat bu ëllëgee dana mujjee ci baat booba te mooy di sa faral di tudd suñu borom ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy lépp loo xam ne daal yaa ngi koy wax yow ndaw li da nga xam ne la gën mooy tudd mooy saxal baatub laa ilaha illallah waaye nag du ci yem nga di ko teewlu te mooy maanaay wax ji te mooy amut benn buur boo xam ni jaamu ga dana jariñe ñàkk gaa jaamu di lore kudul suñu borom waaye nga gëm ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy ki yàlla yónni ci jaam ñi lépp loo xam ne wax na ko rek atte na ko loolu mooy li suñu borom saxal mooy liy wér mooy li nga xam ne mooy tax nit ki am ngërëmal suñu borom ginnaaw ga it julli juróom ñu laaj ko ndaw li yow nga xam ni yaay muskallaf bi yow yow la yàlla di door togg togg jëf nga war a xam attey julli nga xam ni julli kat lu yàlla farataal la du luñ sopp ci yow du lu dagan ci yow waaye yàlla da koo farataal ci yow ci loo xam ne amul benn lënt alxuraan indi na ko hadis leeral ko mboolem téere borom xam-xam yi dajale saxal ni julli lu war la ndaw li gëm ni julli daf koo war ba li muy doon doon ndaw fu mu ko fekk ci yitte yu mu ko mën a fekk dana man a bàyyi yitte yooyu dem jooxe ji farata yu boromam jooju muy julli di jaamu yàlla gi nga xam ni moo gën a màgg ci lu ñuy defal suñu borom ci kaw suuf muy azamul ibada moom julli xam ni mën naa dox relation bi dox diggante doomu aadama ak boromam nekk relation bu nooy ndax mooy liy tàggat xolam ba mën a dindi ayib yi ne ci moom ndax inna solaata tanha anil faxsha mbooleem lu ko mën a xëcc jëmane ko ci jikko yu ñaaw yi ak jëf yi nga xam ne jëfi seytaane yi yu fetteerul la julli gi mën na koo dindi ci moom waaye nag ci bu ko joxee ci ni ko ni ko sharia jàngale ak ni ko xaq xaqiiqa jàngale dinañ ci ñëw incha allah kon mu saxal julli bañ koo weddi ci dara waaye gëm ni bu ko bàyyee ci dë réew moo xam ne dañuy attewoo diine dañ koo war a rey képp koo xam ne weddi na julli ngir ni dafa nekk lu saxul ci diine dañ koo war a rey te ko reyee duñ ko boole ci julli ña waaye bu fekkee gëm na ni julli war na gëm na ni yàlla waral na ko ci moom waaye moo ko nangu def dañ koy rey buñ ko reyee mën nañ koo boole ci julli ñi ndax gëm na ni war na kon nit ki bu gëmee te jëfewut du tee it daani charia mën naa dal ci moom waaye bu boobaa mooy gën a woyafle ka nga xam ni moom dafa gëm ni warul ginnaaw bu mu duggee ci diine loola leeral na ko ci biir dañ ciy bañ a jaar ci détails yi ni mu ko waxee ki nga xam ni daa wax ni julli war na ni ñu ko war a yeexee may ko mu tuub bu tuubul ni ko war a reyee loolu lépp leeral na ko ci biir téere bi ci biir ndénkaan bi waaye julli googu it ginnaaw mu nekk lu war ci moom mënta baax mukk lu dul laab nekk ci jëmm ji kon nag war na kon ci moom lii tax julli gi baax mooy mu laab kon laab day nekk taxawaayu farata ci muskallaf mi kon ndaw li it war na moo mu xereñe lool ak laabam fan yi ñu ngi gis ci réseaux sociaux yi ay laf yoo xam ne dañ leen dékk micro di leen laaj lañ mooy faratay jàpp ak farata julli nga ñoo xam ni boo leen dee xool ci image danga naan am na ni sët waaye mën nañu laa xereñe yan mooy faratay jàpp wala faratay julli loola it sëriñ bi waxoon na ko ci beneen dénkaan bu wax ni yéen waxambaane kat bu ngeen ragalee gàcca na ngeen jiital xam lu ci kaw jafe te loola it sëriñ bi képp koo xam ne da nga ni moom nga yaakaar aju nga ci moom dafa waxoon ni warlul naa ci bindal leen lu jëm ci seen faratay jëmm li nga xam ne sant naa leen ngeen xam la ko ci seen farate jëmm man maay ki warlul bindal leen ko gis nga ni bi rek ñooñu ñuy dëpp micro bi bu leen ko laajoon ba fekkoon ne jàng nañ ko du leen duñ ko duñ ko réere waxuma la sax mu bind fi faratay jullee ak faratay jàppook sangu waaye da mujj def ko ay way yoo xam ne boo ko dee jàng pour nga mokkal ko yomb daanaka la ngay mujj man nga xam ne boo ko xasee xam dara du la réerate ci sa faratay jëmm moom moom mooy tasulu sihaar muy bunt bi mu jëmale ci wàllu wàllu fiq kon laab nekk na di loo xam ni lu war la ndax mooy tax say jaamu yàlla mën ma mën a mat bokk na ci ni mu ko laabiree ci biir bunt bi nga xam ne da ko bindee bindin woo xam ni lam ci jublu mooy ñaaxee ak soññe waaye jubluwaale sa jàngale nan la laabe ndax wax na ne képp koo xam ne dugg na ci julli dikke julli ca gën ngaa mati melo matal rokon ya matal sujjóot ya matal maanaam ponk yëpp daal ba mu mat jataayam mu matal ko nam ko war a defee taxawaayam mu matal ko lépp mu def ko nam ko war a te bam noppee ñu laaj ko lan mooy farata yi lan mooy sunna yi dañ koy faral di laajee ci réseaux sociaux yi nee na kooku xamul lan mooy farata lan mooy sunna nee na kooku ndax lan la mu war a xam te mooy farata yi julli ya da koo koo réere te xam ay farata yu ak sunna julli dafay nekk war-war ndax mooy taxit boo ma boo yàq boo bàyyee farata nga xam ni li nga bàyyi farata la nga xam ni lii kenn mënu koo réparé da ngay remplacer ràkk boobu ak beneen ràkk soo bàyyee sunna nga xam ni sunna mënees na ko réparé da nga ma koy réparé ak sujjo sujjoot waaye bu fekkee xamee woo liy farata xamee woo li sunnoot lii sunna man ngaa bàyyi farata di ko sujjootal te fekk na li nga bàyyi kenn di ko sujjootal indi beneen ràkk rek moo ko mën a remplacé man ngaa bàyyi sunna it eh, jàpp ni julli ga dafa yàqu te fekk ne mënoon nga ko sujjootal kon xam farata ak sunna ci biir ak julli dafa nekk di warugar ci jullit bi nga xam ne bëgg naa jaamu yàlla jaamu yàlla gu wer wàllu laab gi it noonu ni ma ko waxee xam faratey jàppam xam far am sunne jàppam nga xam ne du doyloo cangaay li muy def wala njàpp mi muy def wala tiim gi muy def waaye la cay farata ci cangaay la ak la cay sunna da koy xam te loolu li ma waxee ni bu jàngee ndénkaan bii di tësalu sihaar muy yóbbalu ndaw ñi dana ca xame loola kon ndaw li war a nekk bokk ci ay mu xam lu faratay julleem waaye xam lu sunney julleem waaye naka noonu it xam lu faratay njàppam xam lu sunney njàppam naka noonu it ci wàllu sangu set farata ya ak sunne mu xam lu ko wallu tiim nga xam ne jamono ju fekkee lott na ci jàpp wala mu lott ci eh, sangu mu mën koo remplacer ak tiim loolu day war waaye koor gi mu ko digal nga xam ni weeru koor wi ñu génn yi mu xam la cay farata la cay sunna xam lii tax koor ga wér ak la ko yàq loola it war la ci moom ndax lépp looy def taxamoo la ko yàq mën naa yàq nga jàpp ni mu ngay baax ba tey fekk na yàqu na bokk na ci azaka mu xam lu la cay farata ak la ay teggin donte amut ay sunna farata lañ ko utal ak ak ay teggin mu xàmmee farata yi xam teggin ba bu koy jooxee xam na mu koy jooxee waaye it wàllu aj mu xam ni mu koy jooxe ba bu demee ba toll ci man koo def xam ko xam sunnay aj xam ni lii kat bu ko bàyyee am na lu mu ko mën a remplacer ci rey euh, rey ab gàtt ci la ko mën a ci la ko mën a euh, defare yii di farata moom mënu koo mënu koo ñàkk bu ko yàq daa mën a aj ga day day day yàqu waaye loolu lépp day war ci mu kalaf mi mu leer ci boppam loolu nag ngir mu leer ci boppam faaw mu nekk koo xam ne day dem mu xamlu bu baax loola ba man koo def waaye nag it boo ko ay waajuram xamalu loolu du wax ni samay waajur xamalu ma ko rek déedéet bu màggee war na ci moom mu dem xam ko muy góor muy jigéen ndax xam say faratay jëmm faratal ci góor faratal la ci jigéen bépp góor jullit bu góor ak jullit bu jigéen kon loola mooy li sëriñ bi jàngale dañ koo tënk rek ci wàllu islaam ci biir téere bi boo bëggee jot bépp vidéo bu jóge fii ci chaîne chaîne Nour Darayni TV da ngay fii ñu bind s'abonner boo noppee nga daal di bës cloche bi. Nour Darayni TV le reflet des valeurs et culture di mouridisme.